salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki internet lu rajo Dakar international gannaaw ba leen nuyoo gën gi nuyoo di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla moom mi dara tawul mu def ci réew mi jàmm tey nag yéen a ngi seen biir émission jotaayu xam-xam ñu seet si fi tey kilifa seet si borom xam-xam macha allah yàgg na ñëw waaye yéen nañu ko laajaat moo tax ñu indiwaat ko muy Serigne Djibril Niang le marabout des grands hommes Serigne Djibril nuyu nan la. aouzu billahi mina shaytaani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر حد والصلاة والسلام على أشرف القلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غناو بنيو نيو مبكو جلد يغا خمنا نيو يسيطان رجو دكار انترناشونال فتبارك الله سرين تون نيو لنيو waaye njëkk loolu ñoo ngi sant yàlla bu wér di julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam Euh, di leen dalal di wax ni dinañ am am nañ kontante ak mbégte ci seen teewaay fii ci sunu barab bi incha allah rabbi macha allah sëñ Jibril nit ñi ñoo la laajte yoon yoon ni gëj la gis moo mm-hmm. waral tey ñu ñëwoon seet si la mm-hmm. tey ñu ñëw seet si la bëgg la laaj sëñ Jibril fii réew mi toll nii tolluwaay réew mi mm-hmm. tey boo doon digal nit ñi lan nga leen di digal euh, fa tabaarakallaahu fii réew mi toll euh, bu ñu doon digal nit ñi duñ leen digal lu dul li leen lu ñu yàlla digal Hmm. cuun hmm. yàlla noppi na ak ñun pare na pare na ak ñun ndax yàlla dafa bind téere boo xam ni lu ñu naan alquranul karim hmm. fa tabaarakallaahu mag ñi defoon ko seen code pénal mag ñi alquran moo nekkoon seen dalil alquran moo nekkoon seen tett seen tettalaayukaay fa tabaarakallaahu yàlla dañoo waxoon ni aatiu llaha wa aatiu rasul nañu topp yàlla topp yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon fa tabaarakallaahu fi réew mi toll ñun ñëpp nañu delluwaat tuub topp yàlla cuun nañu delluwaat ci sunna topp yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye fa tabaarakallaahu topp ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi topp ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba topp ko mel ni Cheikh Seydi Hadji Malick topp ku mel ni Mawlana Ibrahima Niass waaye bu ñu fàttee ni fa tabaarakallaahu réew mi fi mu toll nii buñu ñu bakari top yàlla jaamu yàlla waye fa tabaarakallahu alquran dafa waxani la ta'budu ila ilaa iyyahu wa walidayn ihsana bul jaamu kudul yàlla jaamu yàlla nak mënul wér durul jaamu gi ngay jaamu yàlla fa tabaarakallahu dang ci jaamu yentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax ab julit fa tabaarakallahu julita mënul wér durul dafa gëm yàlla gëm yentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam xanaa xamoo ashhadu an la ilaha illallah te nangu woo ash wax ashhadu anna muhammadan rasulullah kenn du la jàppee jullit ah waaw boo ne ashhadu an laa ilaha illa allah forcément ashhadu anna muhammadan rasulullah day ñëw kon muhammad gee wéral jullit gi muhammad mooy wéral jullit gi am na ñoo xam ne gëm nañ yàlla waaye gëmuñ yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax seenu jullite kenn du ko nangu kon fa tabaarakallahu laa taabudu ilaa iyaahu bul jaamu ko dul yàlla mooy fonkol say waxtu juróom boo amee wërsëg demal màkka mm. fa tabaarakallaahu boo amee sa génnal asaka mm. bu weeru koor jotee fa tabaarakallaahu génn wooral weeru koor mm. waaye nag wa bi waalidayni ihsaanan yàlla indiwul sëriñ de sëriñ ñëwul bu yàlla ñëwee yontu yàlla Muhammad ñëw waajur te réew bi fi mu toll desal nañu gannaaw waajur cuun ku diiru jàmm waajur la bu diiree jàmm waajur la nañu fonk waajur hmm. nañu fonk waajur hmm. ku la mën ci hmm. waajur la mënee ku la raw ci waajur la la rawee ku la gën a kawe ci waajur la gën a ci la la gën a kawee fa tabaarakallaahu des fois nga gis koo xam ne ñëpp dañ naan day yàqu ñëpp ni échec na waaye fa tabaarakallaahu ndey ju baax fa tabaarakallaahu baay bu baax fa tabaarakallaahu àq gi mu jox waajur mu sobeeku des fois ñu dem ba ni ko sax na waaye waajur ñëw xettali kon mbir mi فتبارك الله أورما بني جسون واجور لا بول فاتني يالا دنيو تيك واجور نينا بول واخ صح بل ولا تقول لهما اوف بول واخ ياي اوف دا دغ نيون دانيي ديم فتبارك الله ا تون دي واخ سونو ياي ياي مرد ياي توبال فله ياي ديمبالي ما ياي سونال غما تيالا يالا واخونا ولا تقول لهما اوف موم ولا تقول اوف bu len wax uf yow nga wax baat bu upp ta uf ñaari baat la yow nga wax fukki baat amna ko xamni dem na bay saga ndayam la ilaha illallah amna ko xamni dem na bay saga ndayam motax lo ci gis torox lo ci gis sonu hmm. lo ci gis xalku ne hmm. lo ci gis duñ am wërsëg buñu amé amee sens ba am sens sax moy deewu ñaaw lañu ñuy deew cun réew mi tollu hmm. nañu jaamu yalla top yalla top yontu yalla muhammad waye nañu fonk suñu ñaari waajur ridallahi firidal walidayn hmm. ngërëmal yàlla hmm. ngërëmal yàlla nga xam ne moom la Seex Seydi Haaji Maalik doon wut hmm. cun képp koo xam nitu yàlla nga waroot leneen dudul ngërëmal yàlla moom la Mawlana Cheikh Ibrahima Niass daan wut moom la Cheikh al moom la Alaaji Abdou daan moom la nitu yàlla yëpp daan wut waaye yàlla nag dañoo indil bunt wax ñu bu ñu bëggee am ngërëmal yàlla nu ñuy def nee na ngërëmal yàlla daal man yàlla pour ma gërëm la yaay day gërëm cun lu ñuy sonnati toroxal say waajur ñàkk respecté say waajur hmm. ñàkk ormal say waajur hmm. bëgg dem ci sëriñ mu ñaanal la mu nangu déedéet yàgg sëriñ ba da ngeen da ngeen da ngeen di sonn rek sëriñ ba bu yoroon kun ndaw lu fonk waajuram bu ñëwul ndaw loo xam ne fonkul waajuram hmm. bu ñëwoon ci sëriñ boo xam ne lum jubool borom boromam boromam bu ko ñaanal yàlla du nangu kon tey nit ñi bëri na jafe-jafe yu ñuy dem di ko jiiñ sëriñ bi naan sëriñ bi xamul dara fekk ñoom ci ñoom la ñàkk ñàkk gi ñu ñàkk respecté gi ñu ñàkk respecté seen waajur la cun moo wax la dara yettu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xayru xalqillaahi kullihim rasulullahi kon nga xam ne naan ana min allahi wal muminuuna min nii man maag yàlla waaye yéen maag yéen la yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne lu yàlla bind yontu bee ko ci gën dëgg la nit lu muy kawe cër bu muy am yontu yàlla muhammad moo gën a kawe képp ku jubóog sunu borom ak cër boo mënti am yontu yàlla muhammad moo la gën a jubóog sunu borom dëgg la dafa am benn waay julleem dafa rafet waaye bi ay julleem baaxee léppam baax waaye bi mu génnee wala bi mu ci sukuraat war a génn àdduna yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ñëw tiim ko waxal ashhadu an ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah cur waa ji ko wax ñaari baat yooyu waaw te est-ce xam nga baat boobu comme mucc sa kenn mënul fexe ba doo dugg àjjana yàlla mujj nit dana jaamu yàlla di jaamu yàlla ay kóoram rafet ay julleem rafet mu dem bay waaj a génn àdduna hmm. fa tabaarakallaa wax baat yooyu te te ko mu dee ci keefeer yont bi waa ji ni mu doon jaamoo yàlla hmm. ni mu saware woon ci jàkka ji hmm. yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko sax baat yooyu mënu ko wax yont bi la question ne mais kii lan moo ko war a dal fa tabaarakallaahu yenn sahaaba yi ni ko nag wax dëgg yàlla moog yaayam jubóowuñu woon xoolal ko yontu yàlla Muhammad mënta sauvé ngir ñàkk ormal gi nga ñàkk ormal say waajur waaye kon naka la sëriñ jamono jii di def ak yow naka la sëriñ si nga xam ne seen jullit lépp matul naka la sëriñ si nga xam ne seen diggante seen borom ñoo koy tiit te bu ñu fàttee ni yontu yàlla muhammad yont yàlla dafa am lu ko waxoon mhm. sootu fat innaa fatahnaa laka fathan mubiinan mhm. li yaxfira laka llaahu maa taqaddama min zanbi wa maa taaxara mhm. yontu yàlla muhammad yàlla da kaa ubbi baal ko ay bàkkaaram topp ko dara mu jubóog boromam lu ñaan yàlla bu may ko waaye bu yàlla demee ba bëgg gàntal yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir sahaaba boo xam ni fa tabaarakallaahu respecté wul woon ay waajuram mu daal di woo yaayam ni ko sa doom jii de mi ngi waaj génn àdduna hmm. sa naa ko baatu seeday nangu ko wax hmm. lenn rek moo ko teree wax mooy yow mere gi nga ko mere yaa ji ne kon dama xam ne dana dem safara man sama yoon newu ci waaye yontu yàlla Muhammad ci stratégie am hmm. rasulullahi ci jubam rasulullahi ci xam àdduna daal di ni taala leen ma mat xam na xolu yaay ci doom ni taala leen ma mat yu taal mat rasulullahi mu ne nañ ko jàpp ngir dugal ma ko ci biir safara si biñ jàppee sahaba bi dem ba koy yóbbu ci biir safara si yaa ji daw jàpp ci mbub bi ni ko rasulullah yow da ngay lakk sama doom mu ko bis boo ko jéggalewul ba mu wax baat yi hmm. safara samay fekk moo gën a tàng safara si yaa ne ah wax dëgg yàlla sama doom ji de mere naa ko lool waaye nag wax dëgg yàlla yéenoo ma ko safara si rawatina safara sa rek hmm. bal naa ko ci xol bu sedd guy hmm. kon fa tabarakallahu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di wax saxaaba bi ni ko waxal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mu daal di ko wax naan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah macha allah sëriñ bi kon mu mel na que kon léegi jàkka yi li muy bare bare bare kaamilu alxuraan yi tey la gën a bari ñàkk gi nu ñàkk fonk suñu waajur moo waral kon coono yi gën a bari fa tabarakallahu gis nga damay faral di wax naan ñaan bi gën a métti dëgg moo ñaanal ko fonkul ay waajuram bobu waaw te mu mel na sax sëriñ si dafa gën a bari sëriñ si ñaan waaw sëriñ si danañ gën a bari te coo coono ndax nit ñee wàcc seen waajur demal sëriñ si cu dañoo war a njëkkee ci waajur yi soog a dem ci sëriñ si man des fois nit ni ma mm. man ku may jëflante sa waajur da koy xam damay bëgg cun man boo fonkee say waajur mm. jàkkaarloog man di wax ak man damay bëgg cun ki jaram musal mm. ki jaram musul ci bañ a ànd ak moom mooy ku amul ngërëmal waajur cuun non seulement moom day tardé waaye ku ànd ak moom dalay tardé. ku amul ngërëmal billaahi fi jamono ji toll. Hmm. problème yi li muy bari. Hmm. ñàkk teg gu ñu ñàkk teg waajuram cuun ku la gën a fonk waajuram gën la kawe. ku la gën a bëgg waajuram fa tabaarakallaahu gën la yëkkatiku borom waajur ku kenn du fonk sa waajur euh, fa tabaarakallaahu lu bon di la dal. dëgg la ndey ju liggéey du caaxaan. Hmm. kon. Mm-hmm. waaye nga dégg ni des fois. Mm-hmm. nit koo xam ne la man sama yaay gërëm na ma. Mm-hmm. sama baay ñaanal na ma. waaye sama mbir day dëgër. kooku xam nga lu ko dese. cheikhan aarifan sëriñ bu xam. sëriñ bu dul tatoon. sëriñ boo xam ne fa loo xam na bunt. sëriñ boo xam ne xam na xam-xam. sëriñ bu ragal yàlla moo koy teg ci yoon te sëriñ boobu du sonn ak moom de. ah waaw ku amal ngërëmal sa waajur. te gisoo si ubbeeku. sëriñ bi war a faj say say aajo yaa ngi moom fa tabaarakallahu du metti da lay gis rek sopp la ku am ngërëmal waajuram koo gis sopp ko sëriñ mën na ko ñaanal ci ci zarafara ndax ka war a jiitu nag moo jiitu hmm. mu yaay laa taabudu ilaa iyaabu hmm. way waal day nekk saanam hmm. ci ñun ñëpp dund gi luñ fi wut tax yàlla bind ñu wa maa xalaqtul jinna wal ins ilaa li yaabuduni wa maa xalaqtul jinna wal ins man yàlla damaa bind nit ak jinne pour mu jaa pour ñu jaamu ma hmm. kon fa tabaarakallaahu bu dee jaamu yàlla lañ soxla fii hmm. bu dee yàlla sunu bind gi jaamu la ñu soxla hmm. ngir lan ëllëg mu ne dugal àjjana yàlla wax na sunu àjjana nu mu gën a gaawe yottu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne moom la yàlla wax loo nee na sunu àjjana mi ci sunu suufu tànk ñaari waajur kon de xanaa jar na dem def sa waajur sa sëriñ jàpp ko foofu euh, fa tabaarakallaahu ku ko def noppal ku ko def noppalu hmm. keneen koy fasanteeg moom kóllëre hmm. fasanteeg ak moom kóllëre hmm. di ko wax ni ko boo mënee ñaanal ci yàlla ñaanal ma ndax ñaan làmmiñ boo sa mooy yàlla la ci waaye ñaanal yàlla mu nangu jamono ji sëriñ bi toog di la ñaanal yàlla te fekk jamono jooju yëgoo ko yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu luñ la ci ñaanal yàlla mu nangu waaye na fekk nga jëkk am sa ngërëmal waajur macha allah na fekk nga njëkk am nga sa ngërëmal waajur te nanu sàkku ngërëmal waajur yi surtout suñu waajur bu jigéen nan ka luñ ko fonk du doy sëriñ bi mu mel ne que du ñu am foofu ndax gis nañu tey du ñëw ba fii te tamit duñu waxtaan ci actualité. Hmm. mu mel ne que sa ay actualité ak coupe du coupe d'Afrique bii nga xam ne tey démb la woon final bi. Hmm. yàlla dogal ñu gagné Sénégal. Hmm. mu mel ne que ñeneen i sëriñ sax génnoon nañu. macha allah waxoon ci ay résultats. te <laughs> yàlla dogal résultats yooyu jotul jàppandi. yow nan naka nga gisee loolu sëriñ seeg wax li ñëwagul. waaw fa tabaarakallaahu cuun nañu bàyyi xel ne yàlla mooy aalimul aybi wa shahada. ci nu aybu kenn xamu ko. xaybu mooy xaybu mooy lu fadu lu dikkagul. yàlla moko xam. waye nak ciun buñu ñu fàtte ni. yàlla moy xamal aybu ku ko neex. dafa nga dégg ñu naan nañ bay di wax ci suba. suba yàlla rek moko xam. waye ku ko yàlla xamal nga xam ko. bu len fàtte ni nit. kilifa. fi ci Sénégal. dan nañu tàgge nit. serigne bobu taxaw ni ko ki deewagul amna fi. sëriñ dana ñaanal nit ne la lii bu amul fi yoog une semaine wala fi yoog demee semaine ma ma xàcc te ku ragal yàlla koy def ay kilifaa ko fii def waaye ñooñu yàlla da leen xamal ay bu waa cuun moo wax exemple boo xam ni pour mu jage ki defal avion ay at ci kanam avant muy defar avion nan la xamee avion avion ay bu la woon ci moom dëgg la yàlla moo ko xamal ni ko lii ak lii boo ko defee avion nekk ay bu mooy lu amagul rek dëgg la waaye lu amagul yàlla kum nga xamal nga amal ko hmm. wala mën na la ko xamal ba pare moom yàlla amal ko hmm. sëriñ waa yàgg naa wax nit sàngam ni ko bis sàngam ngay génn àdduna hmm. bis sàngam moom mu génn àdduna loolu xaybu la dëgg yàlla mooy alimul xaybi wa shahada d'accord nañu loolu kenn wu ko yàlla rek moo xam aybu loolu ku koy werante sax amoo cër ci yàlla kuy werante ne aybu yàlla mën na ko xamal nit amoo cër ci yàlla waaye ñan la yàlla di xamal aybu xana serigne si pronostiqué won dama yalla bal de way du fen kat yi de ñi ni dama yalla bal ñi yalla xamulen aybu ciun yalla du xamal am deug alhaj abdou si dabax hmm. ci ragal yalla ga ci manu ga hmm. dara yalla da ko daan xamal sax hmm. muy neubut nan bis julit sangam nee ma wala jaamu yalla sangam nena ma am na benn buy waje jot rew mi nañ def sarax sàngam serigne Saliou Mbàkke borom jàmm ak jamono fa tabarakallah da dan wax nan Euh, gis naa ni war nañoo mën a wàcce kaamin ci dëkk bi hmm. ngir safaab yu daan ñëw hmm. bu ko daan wax sax danga nga daan xam ni xeebu gi muy xeebu hmm. waaye sëriñ ci da ngay naan bis sàngam dara dana am match bi nii lay demee wala làmb nii lay demee di ci fëgg nga xam ne dara day fen rek ay puukare dong la ay dóor dong la ay caaxaan dong la cuun yàlla du xamal yàlla yàlla du xamal wax waxkat yàlla mooy borom aybu waaye kum ko xamal nga xam ko am na ñu xam ay am na ñoo xam ni ba nga juddoo mën nañ la wax ba da ngay génne àdduna waaye fa tabaarakallaa dañuy muñ rek nit dana nekk ak njabootam xay xam suba bu xëyee day génn àdduna nit dana nekk ak doomam xam ni doomam bi sàngam lay lay lay lay accouché hmm. bu leen ni léegi jamono dem na ba développé wu hmm. da ngay dem ëmb am juróom weer weer ñu këpp la ñu këpp la kii euh, éco. Hmm. la doom ju góor ngay am wala doom ju jigéen wala ay seex ngay am te ay tubaab dong ko fi def kon man dàkkuma aybu hmm. waxuma ne aybu amul hmm. yàlla mooy borom bu hmm. waaye yàlla kum may nga am sunu maam yi boo leen waxoon ñi daan ndox di dem màkk boo leen waxoon tey am na seen sët yoo xam ni ñoo ngi jël avion di dem màkk duñ ko gëm ndax ñoom boobu xamuñu ay aybu euh, xamuñu woon aybu euh, ndax ndax ndax ndax xamuñu woon avion ndax aybu la woon ci ñoom sunu maam yi xamuñu woon ndax xamuñu avion ndax xaybu la woon ci ñoom bul fàtte alif lam mim zalika al kitab laa rayba fii hudan lil muttaqin alladina yuminuuna bil xayb julli day gëm xaybu xaybu mooy lu fardu comme ñun wax nañu yonent yàlla moo xam ne ñëw na dem na fi def lii ñu gëm ko alquran yàllaa ko wàcc ci yonent bi ñu gëm ko kon fa tabarakallahu ab jullit day nangu dogal waaye ñun ñëpp nañu tub dellu ci yàlla nañu bàyyi caaxaan léegi sëriñ bi man li ma jaaxal mooy ñoom dañ ko gisoon ni noonu la doon demee mu dëppal ñu ko wala ñoom dañu toog nii rek di wax leen neex. Euh, wallaahi xam nga cuun. Hmm. man dama dul bëgg wax ci nit. Hmm. ndax ab jullit lañu. dëgg la jullit dëgg. Hmm. mooy jullit bi nga xam ni euh, moroomu jullitam yi. mucc nañ ci làmminam ak ci loxoom. man sëriñ Jibril Ñaŋ ñaanuma yàlla sama làmmin boo wax ci lu ñaaw di ko jëmale ak jullit. xaw ma de mm. dañoo xamoon yàlla dëppandiku mm. dana am mm. wax dëgg yàlla dana am waaye est-ce que du woon trafic d'influence rek bëggoon bu amoon rek ñu ni ñooma tombee lay waral ay gaaf rek est-ce que laajte nañ sax ay saraxu géléem ak yooyu naan Algérie yi doon bëgg loolu ak ay <laughs> cuut yàlla nañ yàlla musal ci ay pexe yàlla nañ yàlla musal ci ay pexe dëkk bi daal fi mu toll fa tabaarakallaahu nañu jaamu yàlla Hmm. nañu tup delu ci yalla hmm. nañu wañi wax hmm. ciun nañu wañi wax man de demon na baru sa gennat ci internet di wax ndax tay ku ne ngi fëgg naan ana ana ta arab da na wax naan ana ana lay huwa waji deug du tok ni man man waji waye fa tabarakallah ay nit na la serigne jibril ñang gennal serigne jibril ñang waxal serigne jibril ñang fa tabarakallah ñun burul dara sax ñu dañ la sopp di deglu suñu wax rek moo tax euh, waxuñu kenn mm. euh, kaay ñu ñaanal la yàlla mm. waxuñu kenn ñun ñoo mën mm. waaye jaamu yàlla yi nga xam ne safoon nañu jaamu yàlla yi nga xam ne bëgg nañu euh, ñoo xam ne bëgg nañu di wéttalikoo suñuy waxtaan ñooñu ñoo tax ñu génne di waxtaan fa tabaarakallaahu bërki démb rek ñu am benn kilifa boo xam ne ndeysaan gendarme ñoo ngi koy wax gendarme gujaa bi na ma baal àq ci tudd gi ma tudd turam wax dëgg yàlla waaye bëgg leeral rek. Hmm. dañoo daje euh, ma am lu ma doon lijjanti. Hmm. Euh, ci benn gendarmerie fa tabaarakala bi ma dugg see euh, ci sama wàllu oto mu ni ma sëriñ bi yow xàmme naa la man ma foo ma xàmme mun ma nekkoon di wax ci internet bi man ko àggay man ma sëñ bi génnaatal. Hmm. ndax dag ma daan wéttali ci ay waxtaan. kon ñooñu rek. war na mën a tax fa tabaarakala ak ay junni taalibe yi nga xam ñoo ngi bitim réew. war na ñoo mën a tax fu réew mi tollee fii. ñu waxtaan waaye wax lu jëriñ mm. xasuñu kenn mm. waxuñu kenn mm. xam nañu waxuñu kenn xamul waaye ñun ñëpp dañu ànd tuub ragal yàlla ñun ñëpp dañu ànd tuub xam ne kenn mënul kenn amul yàlla rek moo mën waaye nit da bàyyi xel nag ci lu sëriñ day ragal gàcc <laughs> sëriñ day ragal gàcc euh, damay faral di wax naan dañ ma baal àq ci wax ci waaye ku fen coupe d'afrique fen coupe du monde fen combat royal wallahi cuun nga war a mën a noppi nag kon fa tabaarakallaahu mm. léegi trafic def fleurs dafa bari mm. sëriñ yi dañuy mbubboo lu ne te te nit ñi léegi mu ñoom wax wax sax daf leen yomb dama xamul nu mu demee noonu kenn xamul way faral di wax naan da ngay seetaan ndeysaan sëriñ gis ko ci site sàngam mm. gisaat ko ci site sàngam gisaat ko ci télé bi dégg ko ci rajo bi ma ne yow yaa ngi woote ñi ngay woote ñëwagul ngay woote waat loo ndar yaa ngi woote dégguma ñi ngay woote yegseeguñu ngay woote waat loo ndar moo tax nga toog dégg sëriñ rek toog benn stade dégg googu ku ñaanal ñëpp ndax ñëpp koy ñaanalati kon yàlla nañ yàlla dolli sutura ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, fa tabarakallahu li ñuy wax rek mooy hmm. ñoo ngi tuub ci kàddu yi hmm. bu dee am na kenn koo xam ne wax ji blessé na la hmm. waaye nag fa tabarakallahu dëgg yàllaa ko moom lu ñu bañ blessé nit waaye yàlla ji fa tabarakallahu dëgg mi dañ ko koy jox alaaji abdou si dabaax da daan wax naan dëgg mm. bu meloon ni fa tabaarakallaahu yet ma war ko dóor ci ndiggu Seydi Aji Maalik du ci hésité ndax dëgg nag yàllaa ko moom kulil xaq walaw kaana nafsika mm. euh, waxal dëgg donte fa tabaarakallaahu sa bakkan da ciy des mm. ñun nag fa tabaarakallaahu xasuñu kenn waxuñu kenn dara waaye nag wax dëgg yàlla noppi jot na waaye tey wax xam-xam waaye dafa mel ni léegi décor la. Hmm. di mbubboo da ngay gis sëriñ ndeysaan fa tabaarakallaa ñu koy utili ñu koy interroger muy def émission euh, mu jël mu jël kaamil alxuraan teg ko teg ko teg ko teg ko teg ko teg ko ci pooj bi di wane ne alxuraan la gëm. Hmm. te bu ñu fàttee ne al ilmu laysa fil kutub. Hmm. innama al ilmu fi sudur rijal. xam-xam nekkul ci téere. xam-xam mu ci dënd góor yàlla ya. alxuraan bii. boo ko xasee bëgg boo ko jarul nga koy teg sa kaw. loo koy doyee décor la rek. Hmm. mooy waral ngay dem kër sëriñ fekk fa béjjët. Hmm. fekk fa ay pettaaw fekk fa ay leget fekk fa lu ne loolu du sëriñ. ay génn fa sax. ay gé loolu du sëriñ. Hmm. sëriñ dëgg. mën na si luy se. dafa tabaarakallaahu jubóog suñu borom. Euh, yàlla dafa bëgg ko set. dëgg yàlla dafa bëgg ko taaru. kon fa tabaarakallaahu lu bari nañ ko bàyyi xel. Euh, ñun ñëpp nañu tub daal. Euh, dellu ci yàlla. waxuñu ñun ñoo baax. wax ñun ñoo baax ndax ñun ñoo ngi am bàkkaar yoo xam ne ñoo ngi koy jooy yàlla ba tey jéggaluguñ ko ñun ñoo ngi tuub saa su ne di dellu suñu borom mm. saa su ne ñoo ngi jàkkaaroog yàlla bëgg mu yërëm ñu mm. kon xasuñu kenn mm. ñu kenn wax waxuñu ñoo baax waxuñu tamit pour nit ñi ñëw ni Serigne Jibril mii moo ragal yàlla wala nañ dem ñaan lu ci Serigne Jibril nag déedéet ñun fa tabaarakallaahu yàlla moo ñuy teral te day continuer dañuy teral ba ilaa yawmil haza waaye wax te fa tabaarakallaahu ngeen sàkk ko ci ñun mm. te ñun bu ñuy wax mënuñoo hésité mm. bu ñuy wax dañuy wax rek mm. ndax euh, fa tabaarakallaahu yàlla moom moom dëgg kon wax dëgg yàlla xanaa ni euh, kontaan ngeen sax léegi bég nañ lool bég nañ lool te mu mel nekk sax ñiy seetaan bég nañ ngir ñoom it ñun ñëw nañu ci yow ay yoon yoon ngir nga def am ak yow émission waaye da nga ni woon gàttal nga bàyyi nga internet gi ba tax na ñun bi ñu hésité nag xam naa ñàkkul ak mu dajeek tamit euh, gendarme bo moom alhamdulilah moom ñu ngi koy sant ci nangu ci nga xam ni suñuy ay mbir daje na ci. Hmm. macha allah sëñ Jibril nag ku dégg fi nga waxee gis ni fa la macha allah sëriñ Saliou Mbacke ak ñoom ñëpp ci nun tuub la doon hmm. bi nga ni nan tubaat dellu ci yàlla kon alhamdulilah xelu yaakaar naa xelu jullit yëpp. xolu jullit yëpp sedd na xelu jullit yëpp dalaat na kon li nekkoon seen émission jotaayu borom xam-xam ngeen àndoon ak rajo Dakar international ñu seet si woon Serigne Jibril Niang la marabu des grands hommes leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.